Info7 TV ñu nuy leen ziar leen rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak su nekk te yemook dimanche 31 juillet 2022 ñu dikk ak yéen ci xibaar bi ni coow dem fa nga xam ne moom mooy Tiwaawoon moo fa am benn xale benn ji nga xam ne foofu la doon jàngee buñ sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xam ne jëlee nañ ko foofule ñuy xam le ne xale boobu bile ñetti fan tëdd na ko feebar jëloon nañ ko sax sapeur pompier yóbbu ko foofule ci hôpital ba nekk foofule nga xam ne moom mooy Tiwaawoon ba ñu ko yóbboo nag li jaaxal ñu bari mooy dañoo delloo siwaat xale boobu bile ca daara jaajo ji li nga xam ne fa la doon jàngee wopp ji nag gën di ko sonal bam jaaree fa ñàkk bakkanam moom xale boobule sappour pompier nag ñëw na jël xale bi koor bi police ñëw na def kosta ñu baree bari nag ca koñ ba ñu nga sëngeem ginaaw ba nga xam ne am nañu jaaxle trop ci taalibe bi li nga xam ne njort nañ ne daal ak càggante moo waral mu ñàkk bakkanam maanaam daal ñàkk ay moyens yu mu mën a fajoo moo waral taalibe bile ñàkk bakkanam ma nga xew fële nga nga xam ne moom mooy quartier Figny waaw foofu la xewee dinañ ci ñëwaat xam naa jaa ngeen jëf wee leen di ànd ak ñun ci Info 7 TV di abonné tey bés kolos notification bi lépp luñ leen wàccee rek ngeen teel cee jot di ñaanal taalibe boobu le suñu borom yërëm ko te xare ko ajjanaam yi gën a kawe